Trois espoirs. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi am kontaan ak mbégte bu baax baax tey nag mbokk yi ñoo ngi fi Pikine seet si ki nga xam te ne mbokk yi mooy Pokola Baldé moom lañ seet si bëgg waxtaan ak moom waaye mbokk yi bëgg waxtaan ak moom ci làmb defe naa fan yi euh, làmb événement yu mag a mag am na fi waaye mbokk yi combat am taxaw na diggante mag Talfa mu nekkoon combat boo xamante ne amateur yi dañ ko bëggoon axlu làmb ñëpp bëgg ko ñoom ñaari mbër yu bëggante woon waaye euh, coow la dafa bëri woon ndax Pokola bi ñu ko Talfa bi ñu ko laajee dafa na na Pokola bi ñu ko ne bëggumoo ñu bëri léegi ndax damaa bëgg moment bu ñuy bëree xaalis bi gën a bëri ndax bu ñu bu ñu bi taxawee ku ci nekk di nga ci mën a am terrain boo xam te wala kër goo xam te di nga ci dugal sa yaay laataa loolu nag mbokk yi dama koy bàyyi mu nuyoo rek ñu doog a dugg ci waxtaan waaye bu leen fàtte actualité amoon na démb Euh, Balla Gaye ak tafaatin mu nekkoon combat yoo yu neex a neex la waaye di ci jaajëfal Albuax Events bu baax baax Albuax production ndax gis nañ combat yoo xam ne mbokk yi am na démb euh, mu nekk journée bu neex a neex dama koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan wi Pokola nuyu naa la. waaw euh, bu baax nuyu waa àdduna du nuyu waa Sénégal bu baax a baax nuyu ñëpp nuyu monde entier quoi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu monde entier di nuyu kër kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla yàlla def jàmm di nuyu fa xalifa généraux kulu Baye Fall maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa àdduna waaw di nuyu fii nga ma fekk tamit fi ma dëgg fii laa yaroo maa ngi nuyu ñëpp daal nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay maa ngi nuyu ñëpp daal waaw. Euh, fan yi naka nga gisee làmb parce que nag euh, journée yu mag yi am na fii grand contre petit xew na fi combat yaa ngi taxaw wala boog affiche yu mag yi jàll nañu am na yeneen yu taxawaat euh, nu nga gisee làmb jamono. non làmb moom ni ma ko gisee jamono neex na trop waaw waaw gaa yaa ngi bëre waaw noonu la demee daal waaw gaa yaa ngi bëre gaa yaa ngi daan affaire yi tegu si yoon waa noonu laa gisee waaw. Euh, fan yi dañ doon avant fan yi sax bi ngay duggee sa combat yaag liis dañ doon wax yaag yaag yaag Talfa mais bi ñu la wax yaag Talfa nga nga ne pare wu ma pare naa pour bëre mais bëgguma jamono ji ndax maa bëgg su ma lekkee avance am am ci kër ñu jékki-jékki nga jógee ci liis ñu jékki-jékki même pas kii di doon wax sa combat yaag liis ñu jékki-jékki sa combat yaag Talfa taxaw combat boobu nu mu nu mu demee. waaw ah, làmb jooju dañoo war a bëre rek dañoo war a bëre rek ñu war a bëre rek mën nañ bëre man ak moom bërewaat bërewaat loolu rek laa ko jàppee quoi waaw. mais mais dama gis nga jógee ci combat ak Liss bëre combat bu metti yàgg nga bëre combat yu metti sax mais combat bi dafa metti ba noppi amateur yi doyaluñ ñu proposé la Zoss nga bañ dem jëli si nga xamante ni mooy dem jëli Talfa mi nga xamante ni poulain wu la. waaw ah, mais du dara Zoss Zoss mënu ma bëre moom quoi ndax Zoss am na loo xam ne bi la quoi ndax ba mu nekkee xale daf mënoon ñëral dàll waaw dafa ma doon yëkkati di ma may cent franc ay ñetti dërëm wala par exemple ay téeméer di ma jëndal moyen di ma jëndal lépp quoi kon mënu ma bëre ak moom ndax man su man moom ndax sama yaay moom laa déglu quoi waaw bu ne ma defal lii lii laa def bu ne ma defal lii ndax moom laa fi am quoi aw ma fi keneen ku dul sama yaay waaw. mais dañu doon wax yaa ngi Youssou Ndour nga wàcc ko fi dem jëli Talfa ñëpp xaawuñu woon combat boobu. man ma ko fi de promoteur ñoom ñoo xool lu leen arrangé ñoom ñu tëgg ko ñoom bàyyi ñoom ñoo xool lu ñoom ñoo xool mbëri populaire ñu tëgg leen waaw man mënu ma si dara loolu kon xaalis su génn bari na ah sant yàlla rek sant yàlla bu wér a wér sant yàlla rek waaw ñu sant terrain nga ci tudd gannaaw nee bu ko maa taxoon duñ ci bëgg am man moom wax dëgg yàlla moom dañuy sant yàlla rek bu baax a baax nag bu ñu amee duñu wax am nañ de waaw fii àdduna noonu la fii àdduna moom gaan mooy loolu de moom ñu ngi sant yàlla ñu ngi xëy ñu ngi nooy ñu ngi lekk ba suur ñu ngi suñu suñuy famille ñu ngi nekk si jàmm suñu booy ñu ngi nekk si jàmm suñuy am di jàmm ñu ngi nekk si jàmm leneen li si des moom wéy la problème mais Sénégal moom dafa nekk loo xam ne dafa naqaree nekk waaw dafa naqaree nekk tamit mais foo nga muñ la gëmu ndeysaan gëmu fàtte lu bëri ak jëlle lu bëri quoi tey yii nii ñun dañuy nekk ay mbër am na yenn yu bëri yoo xam ne da koy dégg. am yu mel am na yu action yu bëri yoo xam ne da koy dégg mbër bi nii nee nii ak nii ndax. mbër bi bandi wax na mbër bi bandi la. waaw mbër bi bandi la mbër bi day def lii te siiw di jàmm borom quoi. ndax ku boot bukki xaj mbaw la mais ñun duñu ay nit yi bon ñun boo ñu xoolee xam ne ñun ay jàmbaar lañ. dañoo bëgg lépp di nekk si jàmm ñëpp di ko tolloore waaw xamuñu sax lu ñaaw dañuy bëgg sax lépp nekk si jàmm lépp ñu koy tolloore mais fii gars yi nga fi nekk mbër sax dañu leen dëkkal foo dëkkul sax waaw di la waxal wax yoo xam ne nii gaan da ngay reeb a tas mais saa su ne rek yow yow yaay xam sa bopp quoi kuul sa kuul waaw. mais lamb ak ni mu mettee coono yi ñu ci daj boo ko bëggee boole di dégg yenn wax yi est-ce que dina neex ci xol wala di nga ko mën a maîtriser. non wax dëgg yàlla moom boo bëggee dégg-dégg moom du neex si xol du neex si xol ndax ndax ndax mu neex si xol te amaana tey jii nii ngaw boo siwee lu nekk da koy dégg lu nekk da koy dégg kii nii kii ne kenn nii kii nii ñi dañuy nangu ñii di bañ da fekk na amaana defoo defoo leen dara ñii yoroo seen numéro ñii doo lijjanti seen bii privé ñii amaana lan la nga seex ak ñoom romb leen si mbedd bi nuyu leen dem ñu ngi lay gis nga koy dox nii di dem rek ñoom ñu xool booy bi li ko indiselee lu ñu indiselee teram quoi fekk na jotewoo ak ñoom dara da ba ngay nekk xale ba léegi xam ñu sa soxla man na ngeen nekkee mag teewut yow yaay muñ rek mais siiw dafa metti des fois doo toog bëgg a génn wala bëgg a dem fenn di xalaat bu ma demee ñam fay fekk wala coon yi may daj avant may dem. bari sëñ Fallou Mbacke loolu daf may dal sax sama génn heure la lu may dox lu may dox sax sama benn heure bi laa koy dox siiw dafa metti daal wóor na yàlla bu dem démb doon tey du ma siiw. da ngay rëccu loo duggee ci maanaam euh, coono yi ngay da ngay rëccu loo doo siwee wala loo duggee ci làmb. wóor na sëñ Babacar Mbacke mu kobaroo laa lay wax bu démb doon tey du ma siw li ma yàlla may nii xeeb moo ko demee maa sonal ndax damay dégg lu nekk wóor na maam Ibra bu démb doon tey du ma sax siw. mais Pokola fréquentation bi muy fréquenté la wala Pokola milieu yi muy dem la wala lan moo tax ñuy dégg parce que bari na fi xam te ne kenn du leen dégg ci yenn détails. waaw parce que déggoo man a la parce que àdduna. moo demee noonu siiw dafa metti Ousseyn wala déggoo ma wax naa la ko de siiw moo nekk loo xam ne dafa metti doo fekkee sax doo yëg sax mais lu am sax yow dañ la si tudd siiw dafa metti amaana nag yàlla moo ñu ko bindee mais bidi bi ñu ko bindee nii mett na trop mais ñu ngi koy muñ rek pays na mës a xëy mu teggi ko mu teggi ko su ñun jox ko keneen mm-hmm. te noonu lay demee sax ku si nekk li nga war a lekk ngay lekk mais da ngay dem xam ne benn Arsenal yow yaa mujjee toog sax damay toog sax tëdd ba guddi jot nii tiit yeewu xoolaat sama bopp tiit. Hmm. bar sëñ Fallou ndax am na yoo xam ne mooy loolu quoi. mais pourtant am na ñoo xam te dañ lay ñeen ndax dañ naan Pokola fi mu toll nii dundum commencé naa changé Pokola commencé naa am xaalis wala moo ngi dund beneen dund. non man moom dund ma benn dund ba naan dund bu ma doon dund mooy dund Baye Fall dund. wax dëgg yàlla ku ñëw fi nga may fekk xaw ma leneen beneen dund dund Baye dund xaw ma leneen nag. dund Baye Fall laay dund partagé lu ma am bokk ak nit ñi waaw bëgguma kenn mer waa man loolu laay dund moom dund Baye Fall laay dund changé wu ma dew ma fenn waaw maa ngi nii gis nga ma paren saa ma romb la yor saret sama saret paren saa ma romb la yor sama engin paren saa gis nga ma dund Baye Fall laay dund jënd sama fas yeew ko sama bundu gaale man daal dama wàccee sama bopp quoi boo ma maanaam boo ma wul moom lu nekk nga may waxal mais boo ma fréquenté da nga naan jàmbaar a ngi nii woon na sëñ Touba xaw ma kenn problème billaay aw a kenn problème. loolu am na solo loolu am na solo mais damay ñëw léegi euh, ci démb parce que démb defe naa ni amoon nga ñaari combat yoo xamante yu amoon importance mu nekkoon diggante Malo Sass Ndande Fall nekk diggante Jacob Baldé ak Bébé Saloum ngeen nekkoon combat am doon doon ngeen ko waaj wàccaay naka la demee woon. non wàccaay moom wàccaay mett la gars yi moom wax dëgg yàlla moom dañ ko dañ ko entraîné bu mett Jacob moom bu mu simee boo xoolee moom malgré da ngay xam ne kii entraîné na liggéey na lu mu liggéey sax du pour bébé Saloum wax barki maam Serra Fall yàlla dëgg la bëgg mais Sokab lu mu liggéey sax du pour bébé Saloum quoi dañu waxante léegi te dëgg te yàlla tax du pour bébé Saloum li mu wax dëgg la ko jox ponkal yi. mais Sokab ponkal la doon moo tax ma ne nañ ko jox ponkal yi si kaw. ñun ñooy ponkal yi si kaw. si kaw xam nañ seen bopp moo wax na ko ba mu daanee plateau démb nañ ko jox ponkal yi nañ ko jox ponkal yi. mais man li ma ci xaw a jaaxal mooy yéen ñëpp yéen a bokk benn kër macha allah mais ñëpp dañoo bëgg bëri ak franc koo wax mu ne maa ngi franc wala franc nangam lan la seen diggante ak franc waaye Baye Fall kooku moom wax dëgg yàlla man damay taay di wax si moom. non yow bëgg bëri na bëgg bëri moom bëgg démb bi Ama Baldé génne def sotti na yàlla man moom bërëb boobu moom non non du wax si moom quoi. wax dëgg yàlla non du wax si moom ko nag kooku moom boo bëggee dégg-dégg gaan man moom aw ma leen lu ma koy wax waaw bisa ngi si biir bés yi moom aw ma leen lu ma koy wax mais fi mu toll nii Jacob boo ko doon utu adversaire comme ñan nga koy jox. Jacob nii nii nii su ma ko doon adversaire Jacob ak Jackson combat la. Jacob Jackson. waaw Jacob Jackson combat mu neex la. mais Jacob Jacob Jacob Jacob Thiatou Daouda Fall amateur loolu ñu rek. man Jacob Jackson laa gis. Hmm. waaw man loolu laa gis te man su ma doon tëgg alburax. waaw man suñu ma laa yoon tëgg ma a loolu laay tëgg. mais est-ce que est que Jackson dina noonu. a ah, bu nangul moo fay rey paañ rek lan la ëppale soxam si làmb. su caat daaw dafaal pare. saa daaw dafaal bëree mu dem bëreeg moom rek daan ko. kon kon su ma juumul daal Jacob nag bu mag la moom dawul kenn. ah daa dawul kenn kay nañ ko jël rek xool. nga jëlee kay nañ xam lépp dëgg la nañ ko jël rek. mais maa la gëjoon bëree démb mu ñëw bëree bëri combat bu métti ñu ci bay démb amateur yi dañoo kontaan parce que xaaruñu woon loolu ci maalaw maalaw ñoo bëree daanu. waaw mais maalo moom boo gisee mu bëri ñëw daanu rek man damaa jàpp na si mbirum yàlla la rek def na lu mu war a def Malaw quatre ans xaw ma cinq ans mu ngi àllu Tivaouane fii di entraîné dëxañu ceene boppam waaw yoonam nekkul si kenn di dund dund Baay Faal foofu bu amee soom bi lekk bu amee ceeb lekk bu amee suppu kanja lekk lu mu am lekk sonalul kenn si dara damaa jàpp ne maam dafa war a daanu daanu rek incha allah Ah, dafa daan daan am na solo mais léegi damay ñëw tuuti yoo xam naa sa diggante Talfa sax damay bàyyi ba fin ba ma ñëw fa mais damay ñëw tuuti ci combat bi nga xam ne amoon na démb diggante mooy Tapha Tine naka nga jàngate woon combat parce que avant avant lamb ji ñëw waxoon nga ci lamb ji jàlla waaw ma leen waxoon daal naa leen Tapha sama mbokk bool bool la mooy Balla Gaye daal bu la daal moom wax dëgg yàlla doo ko daan la maîtriser moom doo ko daan moom dama ko waxoon moom sax njalbeen laa ko waxoon waaw Tapha Tine Balla Gaye da jàppoon dafa maîtriser Balla dafa maîtriser Tapha boo ko joxaatoon tey mu daan ko. lu tax ko joxaatoon dimanche. Mhm. mu daan ko. moo tax daan ko démb daanoon na lu tax nga ne boo ko joxaatee dimanche bi ñëw mu daan. da koo xam mën ko. kon Balla Gaye su ma ni nga waxe mooy Balla Gaye mën Tapha Tine. da man mën kay boo ko joxaatoon dimanche mu daan ko nag Ouzin tamit am na loo xam ne nii tamit gaan jarul wax sax. mais démb démb démb ni Balla Gaye ni Tapha Tine déroulé combat bi est-ce que noonu la Tapha Tine woon bëri parce que ñu ci bëri dañoo xaar abi sifflé Tapha tàkk ci kaw Balla Gaye mais abi sifflé Tapha Tine daw yoon. Tapha Tine mun naa tàkk si kaw ñëpp moom des si kaw Balla Gaye ak Ama ndax man daal lu mu mënti xal maa jégalu nag grand Tapha sama sama sama mbokk la mais danañ na tàppet mais am nga droit analyser lamb man daal damaa jàpp ne na ragal daal danañ suuraale si gàllaaj ragal leen si lépp man loolu laa kon yow li gars yi di di wax naan ba Tapha Tine dafa ragal daf ko ragal kay ko ba sëñ Touba ñemewul Balla Gaye Lamine bu waxul dëgg wax fen mais Tapha Tine ñemewul Balla Gaye Ouzin. mais ñu ci bëri am na ñenn ñi du samay wax na ñenn ñi nañu euh, démb dañoo téye loxo Tapha waaye fii kenn téewul ay loxoom xeex na dóor na bëri na dañ koo mën dañ koo mën xeex na bëri na dañ koo mën non damay wax Balla Gaye Tapha Tine damay nga ne ma Balla nga ne ma euh, Balla Gaye daf leen a ragal. daf leen a ragal boole ci Ama daf leen a ragal. bari sëñ Fallou Mbacké. maa ngi dégg vraiment su Ama Baldé Ama Baldé ak daanaat. da koy jàppaat daanaat ko bu gën a garaaw bi mu ko daanaa woon. bi mën na daanaat Tapha Tine bi ma. yow bu ko jàppee da koy daanaat nga may kii xanaa doo ma dégg yow Ousseyn ba jàppee da koy daanaat de. mais nag ñu ci bëri dañ ne woon Tapha Tine moment bi mu dugg ci TNT bi peut-être li mu manqué woon jamono ji moom la Tapha am mooy xel mu dal staff bu baax am doole ay faafu ñu ci bëri bay nekk ci ginnaaw Tapha xel mi dal. Ousseyn maanaam lamb maa ngi jégalu nekkul si Tapha Tine laa jële xayma bi de. Mhm. lamb du mbëri yoo xam ne dangay gis ne da nga ngand mii rek mbëri da nga koy fooyee. bëre da koy foowee foowee si nekk xale bëre ay mbiskit koñ ak koñ bëre ay saaku ceeb dem bëre ay tournoi dem feneen ak feneen bëre bëre da nga koy fooyee quoi da koy fooyee. pourtant tafaatin boppam la ah mais da nga koy fooyee waxuma la waxu tafaatin de mais lamb du ngant kese bëre da nga koy fooyee. démb boo andi woon tafaatin diggante ma Balla Gaye nan nga ko doon conseil wala na la woon bëre ak ak Balla Gaye. direeku dox si kawam. di jam waaw di jam. diree bu dox si kawam loolu laa gis de. mais Balla Gaye jamono ji gannaaw bëre naag Tapha Tine Tapha Tine mi toog 10 ans daanuwul daan fi mbëyu ba Balla Gaye bëre ak moom daan ko Balla Gaye fi mu toll ñoo ñooy adversaire am. kon da ngaa bëgg wuyu. alors. ah gis ngeen de lii fii la am <laughs> bu la neexee. wax wax neex la waaw ma def émission maa damay def nii émission après nga woo <laughs> waaw foo nekk nii. waaw lii de mën nga ko sañ a def. waaw sëñ Fallou sama waay la Omar Omar Omar Dabala la sama waay la borom Géejawaay. Mhm. waaw mais léegi mais léegi Tafa Balla Gaye fi mu toll nii kan mooy kan mooy adversaire Balla Gaye. Balla Gaye ah man moom wax dëgg yàlla moom instant bi moom wax dëgg yàlla moom. ah Modou Lo Siteu ñooy bëre Modou Lo Siteu ñooy bëre ah kon Balla Gaye ama tamit raxam la. Mhm. war a jël roi des arènes kon affaire bi dina jaxasoo de. jaxasoo ah, day dama lay teel a wax de. Lamine bu waxul dëgg wax non lan moo koy jaxase. ah. Balla Gaye dafa bon bëgg a doon roi des arènes te Ama dafa bëgg a doon roi des arènes te Fall Double am na roi Falaye Bal def war am roi kon nañ xool nañ ko arrangé rek. non léegi roi des arènes da am empereur dafa am. non non non non roi des arènes moom man laa laa fi gis moo fi nekk muy Modou Lo. kon empereur da cee da nga cee nangu. non nit da wax loo xam ne gis nga doomu aadama. doom mhm. aadama doomu aadama. wax loo xam ne dafa doon direct. ndax sa ñaari mbagg yi malaayka yi moo malaayka yi moo si nekk. Mhm. yàlla moo la tiim. léegi kan mooy roi des arènes. Modou Lo. moo daan Ama. Mhm. daan Ama daan Boy mhm. kon lan la moom mooy roi des arènes moom la ko yàlla teg na ko gars yi nangu rek. mais Aziz dafa génn na dafa andi empereur. da lay daggal salaire. man wax ma waxu Aziz wax ma waxu Baye. waaw non dama lay wax xam nga da nga ne empereur nanguwuloo ko moo tax ma ne la. promoteur ma fi xam nga nangam moom mooy roi des arènes. man d'accorduma loolu. ah man si boppam lu nekk sama xol. am ma xolu ma xolu iñaan lu nekk sama xol moom mooy roi des comme ñun bu bëgg a jëlee ñun ñooy góorgóorlu ñun booy rayante ba fekk fa jël ko si moom lii moom moom la fi yàlla teg nag ko gaay yi nangul. Eumeu ah, gerte la rek day daw rek. d'accord ma ah, day daw rek mbàjjum gerte la de day daw rek waaw loolu laa la. fi mu doon daal loolu amateur yi wax Eumeu Sène Balla Gaye Tapha Tine Ama Baldé ah bu leen neexee. ñu toog ñu ñu ñu ñu lewaatoo xool si xool si taag Modou kan mooy génn. waaw ah, ñu xool ñu xool xool xam nga làmb jooju man maa ngi dégg ñu ay combine la <laughs> sa waay ñoo xamul Modou Lo rek. Modou <laughs> Lo du combine ak kenn. <laughs> ah yàlla baax na gars yi ñoo xamul Modou Lo rek. dañ ko xamul lekk ndeysaan ñu naan day combine waaye koo xamee ba muy nekk booy bu ndaw làmb lay topp làmb ko yàqal lépp. Mhm. buñ ko mosoon daan sax mbapat sax day toog deux. day toog mën a toog un du génn gàlleem. dem fenn nga xam day day ngaay naan day day day day machine la ak Siteu benn conseiller laa koy jox dina xeex dina bëre bi yow mu mu pare loolu. dina xeex dina bëre xeex dina bëre. waaw ku ñam de dina dina la mën wax la muy saf. waaw kay dina xeex dina bëre loolu moom maa la ko xamal. moom conseil loolu nga ah lu ma koy jox xeexal mu ñëw dëggal boppam xeex. njool la xeex ak Modou Lo lu ma am jël. mais xeex ak Modou Lo est avantage am la Siteu Modou Lo am na droite bu bon mais Modou Lo moo dàq xeex. xaw ma bon. Eh, kee dafa naqaree xeexal ndax buy xeex day mel ne Rasool. day wàcc ak xam nga Rasool. waaw sa xam nga Rasool. xam bu baax. di wàcc. moo tax mu naqaree xeexal. te loxo yi. day dox moo raw weñ. kon Siteu am dama lay wax làmb ñun soxoruñ de. mais moom nee na jàmm gën roi des arènes mosu faa dugg moo tax biñ ko waxee combat bi taxaw sax di xaar da koy doo dem jëli. te objectif bi mu am mooy. daan Modou Lo ñun suñu mbokk baay Fall la. Mhm. roi des arènes bi bu ko bëggee jël dina ñafe xare. Mhm. yeneen nañ ko ko bu ko neexee mu dugal ko jàmm gën bu ko waree dugal jàmm gën du ko dugal jàmm gën ndax moom Baye Fall la mais day bëreeg mbër moo xam ne nii si ta mu ngi taxaw si micro yi di waxte xamu ko. kon loolu daal ñiy wax dañ koo xam balaa xam bi ne pare nga pare ngeen génn bàyyi yooyu. kay. nga doog a xam wax dëgg yàlla champion la ba muy dugg si làmb ni man la tolloon naan dafa gàtt dafa gàtt du dem. dafa tuuti mënul nekk mbër mënul nekk mbër yàlla da koy jëmbale muy góorgóorlu ba toll fii mu toll. kon na ko gars nangul lekk senegal lay na xam ne moom la fi teg roi des bi saa bu koy saa borom waree jël dina ko jël loolu kase la quoi man loolu la am lu may wax billaay loolu rek am lu may wax mais fi mu ni nii sa diggante ak Pokola jour bi ngeen demee ñu leen di présenté coow lu bari. Mhm. kan sa diggante ak sa demande Pokola sax sa diggante ak Talfa. ah làmb la rek <laughs> ma làmb la rek man ak moom làmb la rek mu weesu lu dul làmb. waaw làmb la rek. mais nag man li gars yi di li gars yi di ruumandaa suuf dinaa la ko wax parce que ñu ci bari nee nañu da nga jógee ci combat bi métti da juum mënoon ngaa jël leneen ba am ndam doog a dugg ci Talfa. non gars yi bu ñu wax moom loolu la wax maa la koy. xam naa ñi amul tax ñoom bu ñu wax loolu. waaw xam ñu wax loolu. làmb la làmb la Talfa dafa nekk booy ma nekk booy dañoo war a bëree bëree ak man man ak moom mënuñoo bëree fois. mais dama dama dégg ñu ci bay ne seen bëy méngoowul déggoowul daal xam nga loolu day am am na bëy yoo xam te du déggoo. waaw mais fii lu yàlla wax rek fii chaque dimanche ñu daan ku ko mbër daan ku ko mën. yaa Talfa ku mën. Ah, xoolal rek. non man du ma xool man du ma xool dama ne yow mi nekk avance Talfa bëgg koo daan moo tax ma ne yaa Talfa ku mën. da ngay xool. waaw da ngay teg samay làmb man ak moom nga teg samay làmb. nga teg ay làmbam. ban différence la da ngay teg sama làmb nga teg sama làmb. non nii nii mënuma teg sa làmb man seetaan naa la euh, seetaan naa Talfa euh, seetaan naa say combat yu bëri bëri mais maanaam ñii seetaan ñi nga xam ne dañ lay seetaan ñoom nga wax boo tegee say combat ak teg combat am ban différence la am. ah loolu daal mën na mënti xamal daal làmb yi moom lu ma la mënti xamal daal man awma xam ne dama la laaj yaa moom ku dàq bëre nangu woo cee tontu. Talfa man ak moom ku tegal suñuy combat. mais mais nag mais nag Pokola tugg ñu natt ci ëkk. notaal saabu ki li nga mel doo ko wax nit ñee koy géré wax la ko da teg samay combat teg samay combat xool xool kan moo daanee ëpp lu mu daanee prise. jël maanaam moo gën a spectateur moo gën a moo maanaam jël yi gën a rafet ay jël la moom. waa kay. te yow ñam nga encaissé. moom ñam naa encaissé ñam naa arro ñam naa defet xam naa defet xam naa defet lu muy saf. te moom ñamul encaissé. ah xaw ma ndax ñam na ko xaw ma ñam ko de loolu moom la amal kew moom la amal moom la am lu ko tubaab di waxee. moom la amal importance waaw loolu moom moom la amal importance moom. mais ñu si bëri nañu Pokola ni muy xeexee bu jàkkaarloo ak euh, Talfa bu ko defee làmbam yàqu. waaw mais yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na bañ yegg seeg jaam xam nga làmb ñëwagul moom te jii mënoo fee nekk goo xam lu fay xew waaw ñun moom lu ñëwagul moom duñ ci wax da wóoraguñ ndax ndax suba ndax dina yeewu. ndax yàlla moo ñu sàkk waraguñ ndax suba nañ yeew wala nii kon lu ñëwagul nag ñun duñ ci këlam quoi dañ ñaan la jour bi yàlla indi ko si jaam ak salaam comme li ko daloon bi passé contre mbaytin mu ne loxam day metti bu buy ñëw na ñëw ak jaam ak salaam dara bañ ko metti mu ñëw ak wér ñëw ak sewartement ñëw ak endurance ñëw ak lépp incha allah yàlla baax na. yow Talfa bu paree nga bëgg. bu paree physiquement. ñu gisaat nag Pokola boo xamante ni parce que ñu ci bay combat ne da nga fexe ba woon entraîné man xam nga yooyu dañ koy wóobu daal mais damay bëgg di ko wax. sama làmb ji passé. Hmm. man ñi ma war xam naa su ma neexoon du ma bëre ndax sama épaule da doon metti sama zone bi da doon sama sëf bi da doon moo la waral loolu yu bari la. Ah. wala blessure la wala lan la. blessure la rek. waaw non entraînement xam nga des dina changé ci boppam loo xam te yaa moom du ko attan wala mu dem ba yaa moom fatigué wala boog dañ la jékku woon. non xam naa ne nag. ay question jekku nag mais dafa damaa blessé léegi xam nga cat la rek ay moom day génn fu nekk cat laa ko jàppee rek waaw cat moom day day génn fu nekk waaw mais jàppee ma ko dara waaw. lan nga fan yi nag dafa mel ni affaire yi xawul neex te ndax dañuy daan ñi daanu euh, démb soqu ah maalaw saa suy lan loolu lépp si mbiru yàlla la yàlla mooy yàlla mooy joxe yàlla mooy nangu yàlla mooy xañe loolu yëpp si yàlla la yàlla mooy joxe. yàlla mooy nangu yàlla xañee loolu yëpp si mbiru yàlla la waaw man loolu laa ko jàppee daal Ouzin damaa nekk nit koo xam ne nii man damaa gëm saa borom lu mu mënti ñëw dama koy sante yàlla waaw man du ma doomu aadama yooyu di dund di fàtte yàlla man lu mënti ñëw dama koy sante saa borom muy naqar <laughs> muy bànneex <laughs> yàlla la ko quoi man aw ma problème kenn baay man baay fa laa baay xam nit problème baay <laughs> woon na maam jaara bu sow aw maa nit problème. billaahi lan nga waxoon. waa Pikine ah. wax rek ñu gën a jàppale gën a jàppale seen doomu dëkk yi gën a jàppale mbër yi rek xam ne xëcc bu dëkkul dikk loolu kat boole ñëpp ensemble xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lool rek laay waa Pikine. Hmm. waaw boole ndax tey jii mënoo ñëw di jàppale Pokola ne Pokola rek laay jàppale loolu naa fekk la da ngay jàppale kii jàppale kee jàppale kele quoi. Hmm. ndax Pikine moom benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar boo ko naree xar ñaar yow rek yaa si weeru hmm. kase waaw xale nag moom yàlla mooy xar seen xol yi ñu kii lañ bëgg waaw Bakar Balde di ko ñaanal combat bi dimanche yàlla na ko yàlla may ndam lu ndam lu sedd guy te gaaw waaw na Pikine bi yëpp génn képp ku may képp daal sama fang bu may. mooy mbëgu français yi non Baye Fall jàmbaar la di ko woo daal di ko xamal ni daal moom képp koo xam ne daal da may supporter mhm. waaw nga jooleel Bakar Balde ànd yóbbu ko dimanche in ak prince waa di ñaanal prince nag waaw sama doomu ndey maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax di si woo waa ginnaaw raay bi yëpp ñoom marem naar di nuyu papi njaago magam grand buy sonn si ñun la di ko nuyu papi njaago bu baax a baax a baax a baax maa nuyu mafia alba bi ñoom garbase ñoom paquetage ñoom amar dabala maa leen nuyu bu baax ñoom yeeyaa mafia géejawaay bi yëpp maa leen nuyu nuyu waa géejawaay waa Pikine nuyu sam booy grand yoo fi booy micro bi maa leen nuyu bu baax ak waa Opine ak waa Sensala maa ngi nuyu ñëpp daal nuyu dëkk yëpp di nuyu Ndakaaru waa ñu ne doomu ndakaaru lañ maa ngi nuyu ndakaaru bi yëpp yëpp yëpp di ñaan Sénégal nag yàlla na fi yàlla def jàmm képp ku fi indi sa ay yàlla na këpp si yow wasalaam loolu laay ñaan gis ngeen mbokk yi am na solo tey Pokola lañ seet si woon am waxtaan ak moom bu yaatu waaye mbokk yi di lañ jox ci daje beneen yoon seen làmb TV jaa ngeen jëf